بسم الإله فين القدار يا الله سفي بقاء ابي لي فيك يا الله بسم الإله فين القدار يا الله سفي بقاء ابي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 kan na seen bi jaar ñi ngi won ci ginnaw bu ñu suñu drapeau bi defar li nga xam moy suñu kaas café bi ñi ngi won ci nak lañu ñuy fexe defar suñu décoration bi ñi ngi won ci nak lañu fexé ba defar li nga xam mom moy plate bi nga xam mo lañu bëgg def suñu ki bi bu ñëwé ci forme yi comme ni rek mëna ñu jël comme façon bi exemple bi ni ma ñëw da ko tracer comme ci kaw ni xam ngeen ni forme yi heure bo tracer ben ci benen toujours bi nga mujjé indi moy fété kaw bi bi nga njëkkoon indi léegi bu la neexee nga daal di def sa décoration ba noppi daa ko doog a yóbbu ci ginnaaw bu la neexee nga daa ko yóbbu ko doog a na xaam ñëpp koo defar pare man exemple rek ma ñëw na xaama def mu nekk comme façon palaat bu mel nii comme exemple rek nii contour bi mën a xaama ko yéen a ngi gis mën naa ñëw ci effet forme yi ma ñëw fii ma def mu nekk comme façon bi comme prédéfini bii wala ma def ko façon bi wala façon bi yëpp ay façon yoo xam ne benn ak bokk sa morom dafay taaral sa forme yi léegi man li may sama palaat bi Euh, même couleur ba xanaa ma gën koo changé pour ngeen gën a gis li ñuy def léegi nag boo ñu ñëwaatee ci effet bi nga ñëwoon léegi mooy effet bii nii sur la sur la forme bii nii boo ñëwee ci rotation bi fii mu la permettre pour nga def ko xoola mu tëddee nii comme par exemple tëddee nii boo la neexee nga def ko mu daal di nii comme façon bii boo la neexee ko mu daal tëddee comme façon bii nii yow yaa xool ba gis bi nga bëgg a def pour sa parade bi mën a tëddee noonu yëpp ay façon yoo xam benn bëgg as morom man ma xam jël bii nii léegi nii laa ko bëggee na tëddee nii léegi nag wala avant nga tedde lol sax xaaral ma am tout luma leer lo xamene comme tey jii bu ko bëggee yóbbu ci ginnaw xola bu mo defé reculer gis ngeen xola mom par ben par ben lay reculer par ben par ben xola xam bo xolé li ay formule yu bari yuñ boole wax xam ne benn bëgg sax su morom fi bu mo ñëwee di def reculer ni pour mo dem ci ginnaw par ben par ben lay reculer léegi pour mo gëna gaaw nan ngay def da ngay def ci flèche bi ni nga ne ko lan mètre la def réparant mooy lan jël mu forme bi lepp yobul mako directement ci ginnaw xola kon bu day jëlanoo lepp la ko yóbbu ci ginnaw bo ko fi nak bo nag nga daal ñew nak da def rotation bi ma def comme ni mu tëddee ni après ma koy waccé ci suma tour directionnelle bi wala nga yok sa forme bi ya xam noo bëgg yoké comme ni ba ba am forme bi nga mo moom nga moom nga bëgg bo neexee nga daal koy tourner waat nii fa mu gëna tourner tourné mu neexee nga def ko nga ko ni ya xol ci façon boko bëggé légui nak ma la koy téye contrôle da té boole ko mbolém ak décoration yi nekk fi pour lan pour ñu mën leen a groupé ñu nekk ben nga xamné bu ma déplacer ñom ñep duñ duñ dem mu laa jëlaale li nga xam moy kaasu café bi yëpp lay yëpp lay jël moo ci bàyyi benn euh, jëlaale li nga xam moy kaas bi ma ñew ci groupé ni da def len groupé maanaam fi ne bu ma déplacé nii ñoom ñëpp ñooy ànd gis nga biir mo ci bokkut la motax ndax mom moom bi may groupé dama ko jël war naa ko dindi euh, pour ma am table mën naa ñëw fii nii ma ñew fi ma jël fi ben façon table bi ma bëgg ma ñew ci rectangle bi ni da tracé boo tracé gis ngeen moom it c'est la même chose ban façon couleur laa ko def mën naa ñëw fii ma def comme table ñuy mel comme façon bii nii wala façon bii yaa xool ba gis ni ma ne bii laa bëgg ma jël bii nii contour bi mën nii bu la nga def ko mu nekk nga daa koy tourner comme ci effet comme ni ko jàngoon léegi comme nii façon bii nii mu tëdd nii bu la neexee mu tëdd nii boo nee sax ma ngi ko taay ma ngi ko taay tëral def ko mu mu féete nii comme exemple façon bi Eh, table ji ni bu defé momit bala ko def mu daal nek ci ginnaw mu def leen meta ané plan bu defé bo xala plan bi ni ma koy wagnat ba nek ci kaw ni nii comme exemple comme ni euh ma ñew ci rotation bi ma ñëwoon léegi man nako tourner ni man nako def ni euh mu fa fii de comme façon bi ya xol façon bo xam nga ko bëgg defé ma nga jum sati la sama café gi té euh ki bi la waroon tourner moy jëmi table ji ñew ba tourner ko nek comme façon bi wala mu nek mu tuddee façon façon comme façon bi ni yeb ben bëgg si bo xalé façon yi ne li tax mu melni moy ni ma ko tourné won comme ni xaar ma bay ko ni mu nek won comme ni ma la koy tourné comme ni ñu directement ci rotation bi ni comme exemple ya fe da ko yaatal ni mu xaw yaatu euh café gi man na ko gëna def mu len mu nek ci métti ay plan nek ci kanam comme ni bu ko bëggee yok wala moy bu ko wañi man na ko wañi ba nga xam ne fay dafay yem ko table léegi nag mu des ma lan li nga xamee ne moom mooy ay ay ay ay loo ne moo koy téye mooy jën yi ma ñëwaat ci même forme yi fii ma xool lan la bëgg mu téye sama kii même bu ma neexee mën naa jëlaat comme forme yi même bu la neexee ñëw daal di dessiné fii benn comme nii ngeen mën nañoo nuroo ak moom ma jël fii comme texture bi nii ma jël bii contour bi nga xam ma dindi ko def ko sans contour comme nii comme taabal li koy téye comme liy téye taabal soxla ci benen wala ñeent la soxla mo ñu ci contrôle C contrôle V wala nga ñu nga copier def collé am ci 3 dal jël benn teg fii nii ñu gisee euh jëlal benen tek ne ni dal jëlat euh, benen bo xamne ne moy ci bi ci topp ma def collé euh, moom it ma ñu da koy tek ni comme tey exemple comme ni légui nak bi bo xolé dafa feñ man nga koo def lan man nako def lan euh, reculer mudah daal di reculer ma def ko daan wala ma def ko mettre année plan dem ci ginnaaw ndax nag bu dee bu ma ko wàccee nii mën naa ñu tolloon nii même yii yëpp mën naa leen reculer ñu nekk ci ginnaawam ma def ko mettre année plan pour rek nga xamee ne du du feeñ dañu dañu mel dañoo nekk ci suufu taabal bi mën naa ñëw ba ak cat li mën ko def même bii tamit mën ko def leen mettre année plan moom it c'est fi boo xoolee pare sama taabal ji ma di boole yëpp ñu nekk benn may def contrôle te daal di Euh, ci sama taabal ji yëpp laay seetaan ak kii bi nii daal di ñëw fan daal di groupé boo xoolee fi ne forme yëpp yow yaa ko yow yaa ko yow yaa ko def dafay damaa fàtte woon a euh, seetaan kii bi nii mën naa seetaan comme kii bi nii def groupe léegi bu ma déplacé ñëpp ñu ànd am na koo xamee ne euh, même bii fàttoon naa ko moom boo ko ci kii bi am na ku bëgguleem koo xamee ne moom dafay bëgg moom taabal ji moom du ko créé xam nga taabal ji yëpp yaa créé say forme anu ko am day jël ben forme exemple mu jël fi ben forme amon na ben forme boo xam ne ab table la comme tay ji ni ma dal ñew ci remplissage bi ni au lieu que may changé fii ay couleur ma ñew ci image dal ñew ci fi nga xam moy ci ki fi ma ñew ci dal xol amon na image bo xam ne table la alors bin fi table mu gëna gaaw ma ñaré temps ma def table exemple euh comme ni exemple comme ni yëpp ay fa table la ma xam jël fi ben fa table comme comme mën a jël bi ni yéen gis mu la jël bi ni gis ngeen boo xoolee dafay nek table daal dina contour bi waaye bu boobaa bii nii lépp boo xoolee c'est la même chose comme bii nii dafay nekk table waaye lan lan moo tax kay di la tànnale mooy yow yow yi lépp yaa ko créé sa bopp bu dee kii nag moom yëpp moom créé wu moom dafa yem jël rek loo xam ne lu ñu liggéey ba noppi la tey yi mu daal di comme tey jii ma jëm même bu ma jëlee bii nii bu ma tegee fii tamit c'est la même chose ma naa si jël kaas bii nii ma ñëw daa ko teg ci kawam ak neex na nga ko bëggee kon mën naa ko bàyyi ci forme bii ni ma ko defee nii amna ko sante jaxare ko koo xam bëgg a def lu mel ne mburu def ci mburu bo xam da koy lekkal dara man na xaawa jël fi ben form bo xam eh, ya xal form bo boo man nga ko jël def ci comme bu ma ñëw xam jël bi ni bi nga xam moy mooy organigramme yi nii di tracé comme ni exemplaire tracé comme ni exemplaire man na ko tourner bo xam da fay dugné tek ni couleur mburu ni sante jax dañ ko xam man na dindi contour bi tek nak mm, xamna nek mburu waye waaye day des des na tuuti damay jël ma jël fii rek ci forme yi ma jël ci fii nii ci ma jël ay traits comme traits yi nii ma jël traits yi nii exemplaire daal dañoo war a dessiné comme nii euh, boo dessiné nii comme nii façon bii nii mën euh, na ko wàcce nii comme nii mën naa gën a dijji pour nga gën a gis comme comme trait mu rëy comme nii exemple comme nii euh, ma def ko comme nii bu feeñ bu neexee bu neexee def ko même mënoo ko moom ma bee ak façon sax bu neexee mën naa sew comme nii defee bii mën naa cee yu bare contrôle C wala ci copier bi fii nii def nii comme tey mel ne euh, mbuur la buñ teg def contrôle C contrôle V ci copier bi fii ne yaa xool ba ko centré contrôle C contrôle ñëw ci ci bi def nii daal dessin sa mburu comme ni mburu di mel ñu koy jaxate jaxate sële sële yeeg ñoom ji ma ne ma ñëw euh, ba am ci façon bi nga bëgg ñii yëpp man man tere tere yi laa jël rek di def comme mburu ni mel ba am ci niveau ko bëggee comme façon nii ma defaat benn rek mu jeex ñoom mu ngi daal def nii comme nii bu defee boo xoolee comme tey jii dafa mel ne xeetu mburu la boo xam ne ko teg nii euh, nga defar leneen loo xame ne yow moo nga bëgg a defar kon yëpp ay forme yoo xamee ne rek euh, pour li ñuy def nii rek li ñu ci jublu mooy lan pour nga xam ne mi ko suru du bin kasse am nga def yenen ay yenen yo xamne ben ben bu ci nek du bokk sama rom ben bu ci nek du bokk sama rom ci ay forme yo xamne yow mën nga don bind mu nga soxla yi te mënu ko am fenen te soxla nga kon bu wa forme yi dana ma dimbali ba dina mën compose yu bare bare ci fi yo xamne bu ma paree rek bu mako ko da fay melni rek li manam euh, ko gis te jangul wala xamul dara da yakane li dañ duñ fatal wala fekk ni yow ay forme la yow bolé ben bu ko ak sama forme yi bu defee forme yi boo xoolee benn forme bokkut ak sa morom ci mburu meeg ci table ji ni nga ko indee wax naa leen kenn ku nekk boo neexee mu ñëw jël fi benn formu dem dessiné daal di ñëwaat ci remplissage bi nii def ko image bu jëlee image daal xool fi benn fees table waaye lii man ak xaar ma ñu ne ma kat man dañ maa wax table joo xam ne yaa koy liggéeyal sa bopp table joo xam ne kenn du ko liggéeyal kon bu doon liggéey kon bu doon fii ne table ji boo neexoon même mën naa jël fii nii euh, contour bi jël bii nii date fi ne bo boo boolee ay mbir bam mu yàgg nga bëgg ko dindiwaat da ngay cliquer ci koom rek ñëw ci groupé yi daal di ko leen dissocier moy tassat tassal mako wala ko tassat comme bo jëlé bi ni mën na ko comme ma jël bi ni da koy da ko dissocier exemple comme ni jël bi euh comme ma jël bi ni kese daal di tek ni nii ko eh, ni ci ko da kii bi def ko mu nek lan ci meta au premier plan te boo xoolee c'est la même chose ko ñu def légui nga boo bëggee def kii waaye taabal ji defaroo ko boo neexee nag nga xool ay taabal yoo xam defal sa bopp ci ay mbir yoo benn bokk si ak sa morom kon mbokk yi lii moo nekkoon leçon tay bi di leen jégalu bu baax ci bu guddee wala bu leer suñu ñàkk a mën a leer dañoo ngi leen euh, xam naa incha allah leçon bi ñëwaat ñu àggale rek forme yi incha allah daal di jàllaat ci neneen lépp ci lënd ci ñun la li ci tane si tawfeex suñu borom la wante fay la billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس